seex bi da ngay da ngay da ngay politique. waaw dinaa ci seetaan ci télévision yi loolu ak rajo yeeg yooyu déedéet man moom duma politique man moom politique moom defuma ko te am naa yaakaar maa ngi ciy ñaan yàlla duma ko mos a def maa ngi koy ñaan yàlla loolu laa bëgg ndax politique gu Sénégal lu tax duma ko def. mooy politique moom ci le politique ci l'islam baax na waaye politique gu Sénégal dafa laaj fen ñaan ñaankatu yàlla warta fen fen baaxut ndax dinaa la ànd ak sa leader mu ne mu dem nga ne mu ne dinaa leen defal nangam dinaa leen defal nangam yow mi koy wax xam nga ne lii du xam yow mi ko fa indi ànd ak moom xam nga ne lii du am mbooloo mi lay déglu nga indi leen fa xam nañ ne lii du am léegi nag muy ñetti fan yoo xamante ni kenn ku nekk xam na ne lii du am ñu tàccu déggoo loolu moom xajuma ci ak wor war gi ci nekk tey nga ànd ak nit tagg ko tagg ko ba Sénégal di ko dëkk suba nga xalab ko ba nit ñi naan la xanaa diw moom mosta nekk nit moo tax yu baree baree duma ci xaj ku ci ñëw nag ci samay soxla wax ma soxla ni may ñaanalee ñëpp ni laa lay ñaanalee waaye tànkaa naan la jàppal ma diw wateel nangam àndal ak nangam man duma politique loolu moom incha allah képp koo xam ne seetaan nga may seetaan nga nit it mu nuroog man xaj na dafa am keneen koo xam ne xaj na man cheikh laa koog moom ku yàlla may la ci mbooloo yàlla may na ko lool ci mbooloo waaw moom mu danay yëngatu ci loolu ndax yàlla may na ko moom sama cheikh man ab cheikh la sama wayjur ñaari doom yu góor la am man la ak kooku moom yalla may na ko mbooloo moo xamante ni fali laa alhamdu sukur politiciens yu kaw la ñu baree daw di ut ci ci moom ñu daw di ut ci ci moom xaj na lool la ñuy seetaan léeg-léeg teg ma teg teg ma ko ta fekk du man xaj na ak nuroo la ay da dañuy nuroo waaye man moom du ma yëngatu ci politique maa ngi ci li ma nekk kon daal association bu euh, euh, waa Léona Niassène yi nga xam ne nii ñoom presque ñu ngi jaxasoog politiciens yi bokkoo ci. waaw parce que association bi ci laa bokk dafa am association bi ci biir association bi ñoo xamante ni dañuy yëngatu ci mbir politique ci politique mais ànd defar ñeseen ànd taxawu Kaolack lañ wax ci defar ñeseen ak taxawu Kaolack nag ca loola ca laa bokk suñuy teg dama ciy teg am naa ci carte membre am naa ci lépp waaye su fekkee ne nag dañuy dem ci politicien wala nangam ak nangam mitin wala nangam yooyu duma ca dem. su leen nag politicien seetee ñu wax ma ne ma politicien bi daf ñuy seet si su boobaa dinaa taxaw suñ ma joxee kàddu yi la ma war a wax ci dëgg dina ko wax waaye tànkaa naan yow laay jàppale yow laay encore yow laay defal nii loolu duma ko def du ma politique. loolu moom yàlla citoyen sénégalais nga yor nga sa carte électeur yor nga sa carte nationale d'identité. waaw sama soxna si boppam ak sama njaboot du leen wax wateel leen diw dama leen di bàyyi ci seen sañ-sañ kañ bëgg a wateel ñu wateel ko man tamit ci sama sañ-sañ ma bëgg a rek laay dem wateel ko danaay wate jamono jii ñu toll dama waxoon sax ne bàyyi naa wate ndax lu tax mooy réew mi léeg-léeg nga yaakaar nit ci ay wax wax ju rafet programme bu leer nga dem waaxu naaj bi tàng lool ngay kilifa dem ran ci école yi ran ci bërëb yi centre yi ba wate kii bi jot nga dem dugg sànnil ko ñëw taxaw dugg sa kër téye sa kurus di ko ñaanal yàlla yàlla def kooka falu bi mu faloo ay waxuma euh, man samay soxla mënu ko faj yàlla mën a faj waaye soxlaay jaamu yàlla yi ñu ko dénk ci réew bi ci jàppale leen du ci taxawati léegi-léegi bu ne xamatu ci dara lu xew Guinée ki déem boo njaay te keroog bi muy xëccoo élection yi di ko ut tubaarakallaahu gis nga lu ne la leen dikk lu ne la leen wax waaye bi mu ko taxawee moo tax la ko fa fekk fekk ko fa te Afrique moom xamuñ nguur Afrique déedéet ñoom xamuñ nguur ñoom buuru lañ xam nguur nag ak buur bokkuñ ñaari baat yu jege la xaw nuroo waaye bokkuñ sax nuñ leen di bindee bokkuñ li nguuru buur yàllaa ko yeyoo mooy ki nga xam ne te yàlla sax lim ñu mooy suñu ñun ñëpp ay jaamam lañ tey su waxtu tusubaar jotee julliwu ma yàlla du ma rey ndax julliwoo waaye tey su ma waxoon tey président dara ngir nguuru rek wax ko loo xam ne nii ne ko liggéeyut wala réew mi nangam wala pax yi wala nangam ñu ne yónneel dig mu ñëw jël si ko kon kooku ñoom xamuñ xamuñ buur nguuru lañ xam te yàlla moo leen gën a màgg foofu te ñu ngi faat waxtu julli yi di def lu xaraam te nangam te yàlla faale wut ñooña wërsëg wa ñu war a jot yàlla ngi leen koy jox ñu koy jot kon yàlla moo yeyoo nguur mooy mooy xam buur waaye nag ñoom nag dañoo war ñoom dañuy nguuru te dañoo waroon a doon uh, buur buur lañ waroon a doon nga xam ne képp ku leen wax ñi segg wax jii kii lu tax mu wax lii ana lan moo tax mu def lii ñi seet yan moo ciy saafara ñi saafara ko waaye nag dañuy buuru buuru moom mooy dak rek nit ñi di la wooyaka tagg rek nga tëll say maam bis bu la fay dara di jógee it la la fay jëlee it boobaa da nga xam ne lépp dëgg la incha allah. kon bu ma déggee say kàddu bu baax mooy Afrique bokk na ci li leen tardeel mooy euh, ay président yoo xamante nii liggéeyuñu lu di jariñoo askan wi wala di jariñoo ressource ressource askan wi. kon bu ma déggee sa biiri kàddu daal mooy tardement bi nga xam ne nii africains yi du ma ne sénégalais mais africains yi tardé nañu ko loolu moom moo ko waral. waaw xam nga Afrique moom. Euh, mun nañu suñ doon lim président yi nga xamante ni yàlla dogal na euh, ñiy liggéey seen askan ci seen réew duñ bari soo doon tiim sa baaroom yi di ko wàññi pour mu mat fukk du bari. pour mu mat fukki fukki nit loolu du ci yomb daanaka soo ci limee ñenn ñennat rek mu bàyyi mu mu jeex Sénégal yaakaar naa ne dañuy wax ne mag ñi fi jóge woon ci 1959 1922 suñ fi dellusi waatoon seen kër yi xàmmee nañ ko seen mbedd yi xàmmee nañ ko fa amutoon tali amut tali tali ya fa amoo yañ fa defoon bënn na dara recensé wu parce que kat lu tax waaye ñoom ci seen bopp moom soo leen gisee sensé na seen oto yi sensé na seen kër yi sensé na seen lépp sensé na nit nag su fekkee ne day nguuru moom su sensé rek day foog ne réew mi sensé na. xam nga tey su fekkee ne man yàlla dafa dogal wërsëg gane si ma ma am alal jënd ay oto jënd ay kër nangam damay jàpp ne Sénégal moom neex na. au lieu que ma jàpp ne man sama Sénégal neex na mais damay jàpp ne Sénégal neex na ne Sénégal neexul ma ne laa ah, déedéet Sénégal neex na de fekk Sénégal mën na am neexut waaye neex na ci yow. léegi nag ci ñoom nguuru ñoom ñii nguuru ñoom Sénégal neex na ci ñoom moo tax suñ toogee ci débat yi ci télévision yi nga dégg ñu ne la defar nañ nangam dëkk nangam taawtut dëkk bi ndox mi amatut fi dëkk bi yoon wi yow da lay jaaxal sax yow mi fa dëkk di fa jaar da nga naan man ñi kii ci lan la ne fekk moom ab poosam moo dox rek mu foog ne nag yëf yi dox na fekk moom poosam moo dox poosam bi duy ba mu fees mu foog ne poosu ñëpp fees na fekk déedéet da ngay wàcc ci askan wi yërëm leen parce que ñaar danay am nit ki suñ la falee li nga war a njëkk a def ci àdduna mooy man de tey sas wi ne ci sama kaw nan laa koy fajee man de ah diw mii moom a fal kook ci soxlaam rek laay nekk waaye nag yow diwa ma fal yéeg naa kon tey laay doo tey moom su bëggee doon sama noon su su bëggee doon sama soppi kooku daal du ma wax lu naqari lu neex rek léegi nag nga gis koo xamante ni day toog fii ñu xam ko ci réew mi wala nangam mu toog di la tagg lu baax nga di ko yónnee alal ku la xalab wax la dëgg wax la ne la réew mi liggéeyoo nga yóbbu ko ci kaso bi kenn xamul lan la am na coalition bu juddu fan yi bu tudd yeewi askan wi parce que li nga tënk nii yëpp dafa mel ni askan wi dañ leen a yeew noot leen ba niñ bëgg a exprimer woo exprimer wuñ noonu léegi am benn coalition boo xam ne ñoom Khalifa Sall ngi ci ñoom Ousmane Sonko ñu tuddee ko yeewi askan bi est que boobu am nga ci yaakaar. a ah, man daal politique moom Sénégal su ma waxee dëgg danaay am nag yenn leader yoo xam ne am naa ci yaakaar xaj na duma leen tudd waaye xaw ma daal man daal xaw ma kan la du ma tudd waaye am naa ci ñoo xam ne moom wax dëgg yàlla am naa ci ñoom yaakaar ndax jullite gi ñu jullite waaw jullite guñ jullite ndax jullite dafa bokk ci yar maanaam gis naa ne seen parce que lu ñuy doxal dañ cee def ragal yàlla xaw ma nag suñ yéegee lan la ñuy def suñ yéegee soppaliku dana ma bett lool boobaa yi dana ma bett du ma bett ndax man xaj na damay yurdu benn tànk génne benn tànk ndax dama lu dul wóolu 100 pour cent looloo tax du ma politikal kenn su fekkoon wóoloon naa ki may wax ni ki may njort wóoloon naa ko 100 pour cent danaa summi sama dàll sol ko dopp ci dëkk bi di leen politikal ngir yaakaar gi ma am ci moom pour ëllëg Sénégal dox. yaakaar 100 pour cent waaye nag am naa ci yaakaar 50 pour cent am naa ci yaakaar 50 pour par rapport ak ñeneen ñi nga xam ne 2 pour cent laa ci am. waaw loolu nag moom am na xaw ma nag kan la ki ko nit ñi kenn ku nekk nag mën ngaa junj sa xel na diw lay waxal diw lay waxal waaye yàlla mooy borom bi kun fa yëkkun moom xam na kan laay waxal tabaarakallah ah parce que xam nga lu tax du ñëpp laa am yaakaar ci ñoom xaj na am na ci ñu ma ci yee parce que soo xoolee coalition coalition boobu ni ñu koy waxee am na ñoo xamante ni mos na ñoo jaar ci nguur yi nguur nguur ga fa jógee am ñoo xam ne jaar nañ ci nguur gi kenn ku nekk Sénégal moom soo xasee ba bokk ci nguur moom nguur ga baax na waaye soo ci xasee ba génn génnin wa noo ci mën di génnee yow nguur ga baaxatu léegi nag kooku su taxawee xëy taxaw ne ah dañoo yeewoon askan wi damay bëgg ñu yeewi askan wi dama naan ko yow ci ñu ci ñu ci ñu dénkoon buum yi ba ngay yeew ca nga bokk léegi kay loolu jëratu ta wax demal nga jéem koo dindi demal nga jéem koo dindi la nga daan fayee ko ci alal nga xam ne lii yeyoo tuddoon dajaleel ne ñaata weer laa fi def lii lañ ma daan fay xëy naa génnee ko jébbal naa ko Sénégal moomu ma ko woon ndax ñi fi doon liggéeyee xaw ma woon ne liggéey bi baaxut alal jaa ngi nii moomu ma ko woon waaye yow daal léegi déedéet yow daal so soo soo kiiyee rek ñu ne ah moom de léegi tey léegi nga dégg ñu ne la diw mburoog soow la diw mburoog euh, euh, nen la léegi léegi léegi xam nga àdduna kenn xam suñ demee ba suñu réew mi léegi politiciens yi ñu jàpp naan ay diw mburoog soow diw mburoog nen diw mburoog naan góróoli yaa xam nga ne àdduna bi yaa ñoo xamante ni ñoom ñoo war a doon royooy ñoom la ñu war a jël euh, exemple ñooñu dañ leen a war a naw dañ leen a war a fonk dañ leen a war a toppatoo ñiy taxaw di xaslante di saagawante di tuddee seen bopp ay mburoog soow ak mburoog bineegar lu ne ne fi ñiy taxaw mburoog soow nga xamante ne lu nit ñàkk ñàkk ñàkk xanaa mburoog soow 100 francs soo ko amee am fukki fan weer nga mburoog soow ñu ne mooy Sénégal ñu ne diw mburoog soow la loolu mooy euh, man daal Sénégal moom macha allah daal yal na yàlla jàppale ñu macha allah. la dëkk ca Kaolack ñàkkul ne am na ci koo xamante ne nii moom bu ñu taxawoon ne dañ koy dénk commune bi da nga ci sawar lool ndax ci euh, ak yooyu. Ah, ña woote de gisuma ca kenn wallaahi yaakaaruma ca kenn wallaahi yàlla xam na ne jamono jii su doon tay la maire bi ñama fa gis ñiy woote mun na am ma téye sama carte ndax man doylu naa doylu goo xam ne su ma gisut ku ma wóolu du ma sànnil kenn sama kër laay toog maandu ci su ma gisee kama doy nag duma ko politigal waaye dinaa dem sànnil ko waaye coow lu bari li parce que xam nga lu tax su fekkee ne Kaolack tax a jóg Kaolack tax maa jóg tax a jóg kee lu ci jar xaslante lu ci jar xasante lu ci jar tibbantey tànk lu ci jar waxante lu neew lu ci jar yàqante ay mbokk lu ci jar su kii demee fii nga wax lii su kii demee fee nga wax lee jaru ko su dee askan wi la tax a jóg mën nga koo liggéeyal ci beneen domaine bu dul soo jotul mairie bi am na ñu néew doole am na ñoo xam ne seen mbedd yi soxla nañ nangam am na ñoo xam ne soxla nañ nangam nga dem liggéeyal ñoom ci loolu waaye jarul xaste moo tax kenn wax dëgg yàlla gisuma ko ma ci doy waaw mën na am nag sa la ñuy xaj na baax na mën na am waaye nag wax dëgg yàlla gisuma ko ma ca doy <laughs>